asalaamaaleykum chers internautes Sénégal yéen ñi nga xamante ne yéen ñu safoo di ñu taamu di suivre suñu plateforme yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal kenn dal ak jàmm tey nag ñu ñëw ci li nga xamante ne mooy la xewoon démb ca assemblée nationale réew mi député ya daf nekkoon fa doon wote li nga xam ne moom moo di loi wu amnistie ba Macky lu sàkku woon mu doon ab loi boo xamante ne ay laaj yu bëri da cee samp woon maanaam kan lay arrangé loi boobu kan moo ciy profité ay mbokkam wala ay jege ñaaleem wala ay waa ñi nga xamante ne ñoom ñooy Sonko ne mukk bëgguñu li nga xamante ne moom mooy amnistie ba tax na loi boobee ñu doon wote démb ca assemblée ñoom yéeyuñu ci yàbbiwuñu ci wotewuñu ci ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy suñu naataangoo yoor de la majorité et du PDS la de Macky Sall maanaam lépp li nga xamante ne Macky Sall bëggoon na ko doon ko namm ci amnistie bi ñi nga xamante ne ñoom ñooy député yi ak majorité PDS ñoom jàppale nañ ko ci li nga xamante ne moom moo di bëgg-bëggam boobu noonu ba léegi ci votum loi boobu ñu ñëw ci ki nga xamante ne moom muy l'observateur l'observateur di ñu wax ne terrorisme mort casse il ne s'est jamais rien passé Macky baal na ñëpp parfois maanaam ku bëgg baal na la ku bañ baal na la ndax amnistie boobu nga xamante ne tey jii sàkku na ko ba ñu signeel ko niki démb ñu ñëw ci ki nga xamante ne moom mooy journal Le Témoin qui titre date de la présidentielle et repêchage des candidats maanaam naka Macky Sall bëggee woon ak ay jege ñaalem ñu tëgg tëggaat élection yi Karim Bokk ak ñeneen ñu gis ne tey ba léegi le journal témoin mi ngi titré désavoué par la conseil constitutionnel Macky limoge Amadou ñu ñëw ci ba tey ki nga xamante ne moom mooy Dakar Times le journal Dakar Times qui titre euh, va lancer ta mu mel ni ba nga xamante ne Macky Sall limoge ne ki nga xamante ne mooy Amadou Ba daa mel ni ku koy libéré pour mu am jotu campagne maanaam doxal nga dem campagne ñu ñëwaat ba tey ci parité le conseil constitutionnel di maintenir li nga xamante ne moom mooy les dix-neuf di leeral ne lépp loo xam ne waxtaane woon nañ ko fële ca dialogue ba te waxi conseil constitutionnel jiitu ko maanaam loolu du mës a deñ ba léegi conseil constitutionnel di wax ne Macky mënta sàkku date boo xamante day weesu mandaawam di ñëwaat ci li nga xamante ne mooy documents yi ak dispositifs yi nga xam ne moom la ñu war a utiliser ci scrutin vingt jumtukaay yooyu yëpp ñu prévoiroon pour élection yi mën nañ koo jëfandikoo ci 31 mars yi di ñëw l'info quotidien di ñëwaat tey ci nga xamante ne moom mooy conseil constitutionnel di titré Macky Sall cède à la pression des sept sages maanaam le conseil constitutionnel di di dëggal boppam ci nemmeeku bi nga xamante ne moom lañ ci nemmeeku maanaam li nga xam ne moom mooy date élection yi Macky Sall proposé woon le 2 juin nee na du fi amee repêchage ak processus bi nga xam ne Macky Sall moom la doon sàkku ñu reprendre ko nee ko du fi dix-neuf yi nga xam ne moom la conseil constitutionnel choisir nee na ko loolu moo fi am point barre direct news di ñëw di titre moom ba léegi bras de fer entre Macky Sall et le conseil constitutionnel Macky Sall qui fixe la date des élections au 24 mars 2024 waaye nag teg ci tas tasar gouvernement bi tabb ki nga xamante ne moom mooy Sidiki Kaba comme premier ministre dàq Amadou Ba ba léegi ak waa direct news ñuy laaj ñi nga xamante ne moom la mbir yi tëddee ndax Macky Sall du rey ñi nga xamante ne ñoom ñooy conseil constitutionnel ba ñu dee wet wet wet ndax nag ñoom ñaar ñi fa ñu jëm ndox amu fa ñax sax ñu ñëw ci bés bi le jour bés bi le jour bi nga xamante ne moom mooy titre les sept intransigeants du conseil constitutionnel rejettent les conclusions du dialogue et sur la date du 24 mars waaye nag ndax campagne mës nañ ko amal fii nga xamante ne moom mooy Sénégal lu weesu 21 jours bés bi le jour di dikkaat ba léegi ci yaakaar bu tas bi nga xamante ne Karim Wade am na ko ak i ñooñam maanaam waa PDS ñu ñëw ci ñi nga xamante ñooy le point point actu le point actu di titre deux dates pour un scrutin maanaam Macky Sall mi nga xamante ne dafa choisir le 24 mars ak conseil constitutionnel yi nga xamante ne dañoo choisir le 21 mars ban dat moo ciy taxaw ba tey muy dikkaat ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy le sept sages mu bind ci yéene yéene kaayam les sept sages se sont-ils braqués après avoir été malmenés par les libéraux et parlement maanaam xëccoo bi nga xamante ne tey jii weddi bi ak conseil constitutionnel ak sañ-sañ bi nga xamante ne moom la àndal ndax ci ñàkk cër bi nga xamante waa PDS ak waa parlement bi joxuñu ko ko en ci mën a doon Macky Sall daal mooy subir les conséquences et son ñu ñëwaat ci ñi nga xamante ñoom ñooy suñu naataangoo entre et un et une amnistie projet de loi boobu boobee nga xamante moom mooy amnistie démb ca assemblée nationale quatre woote ko ñi nga xamante ñoom ñooy quarante ñoom duñ ko voté mu am ñaar ñoo xamante dañoo lànk téye seen loxo néewuñu déet néewuñu ne waaw ñii critique ñëw feelu leen les honorables sa tache du sang ëpp na ëpp na maanaam député yi ñu ngi takkal seen bopp sa déreetu 86 moor yi nga xamante ne moo am entre 2021 ak 2024 ndax loi amnistie boobu nga xamante ne nañ ko démb ci assemblée nationale démb ci àllarba gi mu nekk li nga xamante ne mooy àllarba boo xam ne lu am yëngu-yëngu journal la Soleil di ci ñëwaat titré le na ci lool muy def allusion ci li nga xamante ne moom mooy datu élection yi ak wàccee bi nga xam ne wàccee nañ ko Amadou Ba ak fal bi nga xam ne fal nañ ko Sidiki Kaba ak tamit gouvernement bi nga xamante ne yaakaar nañ te tey ji war nañ koo tastaat defaraat ñu ñëw ci lii quotidien moom mi nga xamante ne tey dafa xëy titre le conseil constitutionnel en mode sabotage en tout cas lu ci mën di am seen diggante jagas na lool ki nga xamante ne moom mooy conseil constitutionnel ki nga xamante ne moom mooy Macky Sall l'évidence titre la république chamboulée maanaam dëkk bi jaxasoo joona lëmba joona kenn xamul fooy teg sa tànk l' évidence ba tey di ñëw di ñu dikkal ci la fin du règne chaotique di fësal li nga xamante ne moom mooy ma Macky Sall ñu ñëwaat ci Sud Quotidien mi nga xamante ne moom it daa xëy titre game over maanaam le conseil constitutionnel siffle la fin de la récréation pexe jeex na fi mu toll nii bëgg bëre bañ bëre bëgg dem bañ dem Walf Quotidien ñëw feelu ko di titre c'est fini wuré wa dem na kéngi waxi mag dem na neñ taali le mandat di ñëw le président doo au mur enquête ñëw ñëw feele ko Macky Sall ak waa PDS ils sont dos au maanaam pexe jeex na conseil constitutionnel tas na yaakaaru PDS ak ki nga xamante ne moo di Macky Sall ba léegi ñu des ci journal enquête journal enquête mi nga xamante ne tey daa xëy di ñu wax fële ca Ndiireen ca Thiès ne benn xarit boo xamante ne daa rey xaritam ba pare dugal ko ci saako sànni ko ca teen kooku moom mooy ban façon xarit mu nekk laaj boo xamante moom mu laay samp di ko laaj man ci loolu laa leen euh, ne yéen ñooy ne souvre Sénégo li leen wax ne à la présentation Fambay Ndiaye Badiane ak Abdou Khadre Diouf le grand technicien jërëjëf ñu yendoog jàmm